asalaamaaleykum amee fidèle internet télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen uh, ziar comme ni ñu koy defee nag uh, saa su nekk uh, di seeti ñi nga xam ne ñooy ndaanaan yi nekk daal di seet si ki nga ne mooy Imam a yaakaar naa doonatul ku ñu leen di présenté mu yor nag li nga xamante ne mooy ay daralu xar ku ne xam ne ne nag dañoo jëm ci li nga ne moo di tabaski mën nañu wax ne jamono ji moom xar mooy actualité ko ko amul moom nga bëgg <laughs> daal di seet si ki nga xamante mooy Imam ñoo waxtaan moom ci li nga xamante mooy situation réew mi waaye tamit ci li nga xamante mooy situation xar yi jamono ji ndax nag dégg na ci ay version yu bëri xëy na moom mi nga xam ne mi ngi ciy yëngu dinañ ci mën a leeral imaam ñu ngi lay nuyu waaw salaamaaleykum wa rahmatullah soxna Rama maa ngi lay nuyu di nuyu waa Télé Sénégal ñu mm-hmm. yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan mm-hmm. surtout ñu nekk ci diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu mm-hmm. waaw comme ni nga ko waxee moom ñun yaa ngi ñu fekk tey ci daral gi ñu nekk ci terain bi parce que période bi moom Euh, période terrain la quoi. dëgg la da ngay da ngay placer mhm. ci ay lieux yu wuute. di mhm. di superviser. Mhm. waaw di superviser. man du man kese man maay liggéey équipe la am. équipe nga àndal. équipe bi comme ni nga gisee xale yi nga gis yëpp. waaw fii la daanee seen doole. di wut luñ fi am pour yóbbu seen kër. ndeysaan dëgg la. xar yi nag comme ni nga ko gisee moom. ñuy ay xar yu yu xar yu yar la quoi. ay xar yar la. mooy xar yi gën a cher ci xar yi waaw am na sax yu leen gën a cher. Mm. am na yu leen gën a parce que mm. yi cherul ah ay six cent mille sept cent mille. ah six cent mille sept cent ak fi réew mi tollu imam. <laughs> waaw yu mag yi quoi yu mag yi. am na xar yi jar million ay poussière. waaw c'est la demi day ay ay millions yu bari la gars yi jaay. Mm-hmm. mais ay xaru azawaat la. mooy bariwul graisse. Mm. boo tamit ndawal gi moo ëpp quoi. dëgg na fi tamit xar yu yu yemamaay. Mm-hmm. yoo xam ay deux cent mil mm-hmm. cent quatre-vingt ba deux cent soixante quinze mille. Mhm. am na fi yu mag. ku ne mhm. daal yaay xool ku nekk yaay xool fi sa poche tolloon rek sa poche tolloon rek. Mhm, waaw xaru cent moom amu fi man de xaru cent mille bëggoon. <laughs> xaru cent moom peut-être dina am dina am. <laughs> Ah. gars yi dinañ ko am mais ñun yi ñu am fii xam xaru yar. waaw ak coono bi ñu ciy daj. dëgg la. moom boo yow je préfère bu jarul nga dellawaat ko fa mu nekkoon. parce que ñi la ci xam. même bu dul tabaski sax dañ koy soxla. dëgg la di waaw léegi nag maa ngi dégg le ministre. waaw monsieur le ministre waaw Amadou Ba Amadou Ba. Mhm. nee na xaru 60 sax am na ci marché bi. non loolu moom. loolu moom dañ loolu moom demeewul noonu quoi. Mhm. parce que nag ñun ñu ngi ci terrain bi gisuñu fi xaru 60 000. fii moom xëy na yooyu boo demee ay Tamba. Mhm. ay Kidira. mën na fa am waaw mën na fa am mais pas Dakar. Dakar moom béy sax béy sax jaru fi 60 000. day na waar euh, mais te yi nga xam ne ñoo daan joge si àll bi di indi seen ay xar fii euh, ci Sénégal boo bu tabaski ñëwee. Euh, dañu gis ne bi yoon bëriwul lool dafa mel ni dañu xaw a ragal ak situation bi nga xamante ne moo xew actuellement ci réew mi. waaw ah, loolu mooy loolu mooy dëgg nag. Mhm. nga réew li ci ëpp solo mooy réew mi stabilité. Mhm. nit ñi nit ñi dal. Mhm. parce que borom xaalis mooy opérateur économie yi. duñ jël seen xaalis ci ko investir ci réew mu dalul. dëgg la te nag tey lii li nga xam ne mooy dëgg. mooy Sénégal crise politique bu mett lan nekk. moo am. parce que yàqu-yàqu yi fi amoon semaine prochaine ñu koy ñaawlu. yooyu yëpp nag nguur moo war a responsable ba bañ a yóbbu réew mi ci situation boobu mhm. yaa ngi dégg muy nguur muy opposition waaye tey li fi am ñëpp xam nañ ni du lu bett kenn mhm. parce que luñ mënoon a éviter la mhm. parce que mois de mars bi mu amee au lieu ñoom ñu tiire ci ay leçons mais tiré wuñ ci ay leçons dañu ni covid bi la sénégalais yi covid bee leen génne man mi damaa gëmoon ni du covid bi sénégalais yi Ousmane Sonko moo leen génne euh, le premier juin bi wanaat nañ leen ni Ousmane Sonko moo leen génn kon nañ bàyyi Ousmane Sonko bu nekk ci jàmm bailleurs yi ñëw investir mhm. Sénégal dem ci kanam mhm. parce que réew mi ñun ñëpp a ko bokk ah dëgg waaw mais nag bu ñu bëggee euh, stabilité réew mi tamit mhm. il faut ñu fexe ba jàmm am jàmm nag moom day tegu ci dëgg dëgg parce que fu dëgg amul jàmm jàmm dafa am dëgg la euh, tey loolu responsabilité kan la euh, tey yéen a ngi koy jiiñante bu ñu waxee nguur gi ne opposition bi ñoo bëgg taal réew mi opposition bi tam dañuy wax ne nguur gi ñoo bëgg taal réew mi exactement responsabilité kan la non man am na benn nit Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. bu responsable rawatina man camp bi ma féete di opposition mm-hmm. ñu gëm ni ñun ñooy majorité ci réew mi ñun Pastef dañoo gëm ni majorité bi tey ñun la kon ñun taal réew mi amalu ñu njariñ réew moo xam ni bu yàlla bu ko yàlla dogalee boo ko yàlla dogalee si sept mois da koy jiite kooku réew moomu tàkk amalu la njëriñ léegi dafa fekk ni nag ki nga xam ne moom bu dara xewul bu dara xewul day jël alalu jàmbur kooku bu dara xewee mën na cee profité yàq alalu jàmbur jël alalu jàmbur waaye responsable Pastef boo xam ne ni yaa ngi bokk ci ñi ñi wër Ousmane Sonko mhm. sa leneen nekk na ci lu dul taal réew mhm. Mhm. man loolu moom moom laa gëm te waa APR dégg ku mel ni le maire de le maire de Guinaw Rail Sud maa koy nuyu au passage Jara mhm. bokk nañ benn plateau ci se mhm. ci TFM mu ni moom gëm na ni réew mi ñu ko taal duñu waa Pastef mhm. te effectivement Pastef idéologie la dëgg la foofu ay boroomi xam-xam fa nekk indi programme jaay ko réew mi kon ñun euh, Euh, bu ñu kenn gëmloo bu kenn gëmloo sénégalais yi ñun amuñu intérêt pour réew mi tàkk parce que réew mi ñoo yor majorité bi mm. am ay député am ay maire ci dëkk bi mm-hmm. di ay responsable man mi di wax ak yow li may tuut tuut kilifa diina la kon fu ñu taalee réew mi duñ ko fekkee li am solo rek mm-hmm. mooy ñun ñëpp ñu responsable waaye premier responsable ki war a gën a responsable bu caaxaan jeexee dëgg des mooy la gouvernement mm-hmm. ci biir gouvernement bi ki war a gën a responsable mooy le président la république parce que moom lañ dénk réew mu xam ni dossier yi ñu yëkkati ay dossier politique la nañ ko teg ci suuf parce que mënoon yow Karim Wade mi nga xam ne mhm. yow yaa wax ni dafa sàcc cent milliards ak lu topp mhm. kenn waxalu la ko état moo ko wax moo ko wax nga génne ko réew mi exilé ko ah mhm. nga ni Karim Wade moomu tey sénégalais yi mën nañ koo tànn mën nañ koo tànn Sall nga ni dafa sàcc juróomi milliards cinq milliards nga ne Khalifa Sall moomu mën nañ koo tànn mhm. waaye Ousmane Sonko mi nga xam ne nee na ba mu daree liggéeyal réew mi ba tey mu sa sàcc dërëmu sénégalais yi mhm. nga ne Ousmane Sonko moom du bokk mhm. loolu jarul jàng droit pour xam ne xel nanguwul ko kon nañu am retenu ñu dellu siwaat xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ñu nawlonte ñu respectente xam ne li war a am mooy candidature Ousmane Sonko candidat wu jeunesse bi la candidature boo xam ne le peuple sénégalais moo ko gis nga damay joxe exemple bu gàtt. Mhm. Barack Obama bi nga xamee ni américains yi bëgg nañ ko fal. Mhm. ñëpp ñëpp nañ ni peuple bi ñoo taxawoon pour fal ko lobby Amérique lobby ba fa nekk d'accord mhm. ñu ci woon de. waaye dañoo bàyyi peuple bi fal ko. parce que espoir bi ñu amoon ci moom. bi demee ba ba doyal. peuple bi moo ko sanctionnel boppam maanaam du lobby du lobby mooy créer. pour di wax kii bokk ak ki dul bokk peuple mooy tànn ki bokk ak ki dul bokk mhm. te le peuple sénégalais mhm. moo soxla candidature Ousmane Sonko Ousmane Sonko dëgg la tey Ousmane Sonko moomu tey mu nekk ci situation bu xaw a ndax gis nañu ne dafa am ñaari dossier yoo xamante ne euh, dafa nekk ci yoon muy dossier ak Mame Mbaye Niang amaat dossier ak nga xamante ne mooy Adji Sarr alors euh, tey euh, ñu gis ne ñu ngi ko tëj biir këram gis nañu nag euh, yéen waa Pastef ne ngeen di def euh, marche jëm fi nga xamante mooy cité kër góor gi le 25 euh, a jur ci réew mi parce que bu ñu xoolee tamit marche bi c'est à la marche boobu li mu a jur ci réew mi est-ce que calculer ngeen ko est-ce que loolu tey du leen yokk ay noonu parce que tey bu fekkee ne tey marche bi bu ngeen ko defee marche non autorisée ku si nekk xam na ni muy demee ndax ni ñu koy waxee ñi gàmmoog ñi raas dem bokkuñu am na si ñoo xam ne dañuy rax ci mbir mi ngir yàqal ñenn ñi nga xam ne ñi ngi yor seen ay commerce est-ce que tey loolu du du du créer ay noon Pastef ñi nga xamante ne ñoo leen bëggoon dem ba bañ leen ci li nga xamante ne mooy fetu tabaski bi non au contraire hmm. loolu li nga xam ne mooy dëgg mooy sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo d'accordul ci barricade bi ñu barricade kër Ousmane Sonko parce que sénégalais bëggul injustice Ousmane Sonko tey li tax mu nekk héros ci réew mi hmm. injustice bu mett bi ñu koy teg loo koy gën di teg injustice sénégalais yi di gën a ànd ak président mak Sall mi ba ko Ablaye Wade tegee nit ñi dañoo jógoon ànd ak moom kon il faut ñu xam réew mi ñu nekk man réew la loolu ñoom ñoo koy wax rek pour def ko prétexte waaye tey boo defoon reportage ci mbedd mi sénégalais boo laaj mooy dañoo bëgg Ousmane Sonko seen chef de l'opposition ñu bàyyi ko mu tabaski ci jàmm sans ay policiers di ko wër parce ñoom ñëpp ñu ngi seen kër di tabaski ci jàmm di am ay visite mm-hmm. koo xam ne li ëpp ci réew ma moom lañ bëgg nga tëj ko ni kenn du ko visiter loolu xel nanguwu ko li may wax ni man logique la parce que man politique benn politicien jaralu ma wax lu amul mhm. man yaakaaruma politicien pour dund mhm. fii nga ma fekk damay liggéey yaa ngi dégg ñoom ñii ku ci dem ku ma ci àndal rek dëgg lañ àndee ak Sénégal man intérêt Sénégal laa jiital mhm. mais tey mënoo ministre yi Macky Sall yëpp toog seen kër di tabaski nit ñi di leen gis ñu ne Ousmane Sonko mi chef de l'opposition dañ koy tëj këram loolu xel nangu ko am naa marche bu ñu autorisé ak bu ñu autorisé man moom ku ma xam man damaa gëm république gëm ay loi mhm. man marché bu ñu autorisé wul man du ci dem man personnellement loolu sama responsabilité la yaa ngi dégg mhm. waaye ñi taxaw ni dañuy marche mhm. waxuñu ni dañuy dem toj wala dañuy yàq marche bu pacifique lañ woote marche pacifique marche pacifique nag ku ko woote ci ab république li jaadu mooy ñu bàyyi la nga def ko xam nga comprendre li ma wax parce que ñun ab république lañ yor ay loi moo ñu tënk loi yooyu. moo mhm. permettre Macky Sall tey buy ñëw ci tali bi. Mhm. ñu daal ko jàllal. dëgg la droit de marche moom dafa nekk sax suñu constitution suñu constitution. Mhm. tey bu président doon ñëw dañ lay xàllal ñun ñi ñëpp dañuy jàll. parce que loi moo ko ko may. dëgg la loi boobu ko ko may nag moo may opposition bi bu ñu bëggee def marche bu pacifique ñu marche. kon jàpp naa ni li war a am mooy ñu bàyyi leen ñu marché ñu encadré. man de loolu laay wax. mu mel ni marche bi marche bi. Euh, am na am na ñàkk déggoo bu lu bari ci seen biir yéen waa Pastef am na ñu si d'accord am na ñu si d'accord. non non marche bi du Pastef. Mm. marche F24 F24 la waaw. F24 mais waa Pastef dañ moo ko moom. Mm-hmm. marche bi yeewi askan wi sax ñoo ko ñoo ko ñoo ko woote. ñoo ko woote Pastef day bu xasee ba askan wi wax. Mm-hmm. day engagé Pastef. Mm-hmm. engagé bépp leader bu nekk yeewi askan wi. yeewi askan yaa ngi dégg. ndax autorisé wuñ ko dégg naa ñu ni autorisé wuñ ko. yaa ngi dégg man kon mënuma cee sori. yaa ngi dégg parce que mm-hmm. man sama casquette dafa am lu ma may am lu ma mayul. yaa ngi dégg li ma gëm daal mooy. Mm-hmm. autorisé marché mooy jàmm ci réew mi. Mm-hmm. parce que musuñu fee autoriser benn marche. ba problème am waaye boo xoolee marche yi ñu autorisé wul yëpp. mooy am coow mooy am problème. loolu moom réalité la. boo xam ne ñun xam nañ ko. ñun yàlla daf ñoo dimbali ay xale lañ waaye lépp fi la ñu fekk. dëgg la waaw 2011 ñoo nekkandoo woon place de l'Obélisque. di xeex. tey bu mi tollaatee fii F24 jógaat taxaw ni dañoo bëgg démocratie dellusiwaat ci réew mi mm-hmm. ñi ñu xañ seen àq ñu delloowaat leen ko mm-hmm. loolu l'histoire se répète kon maa ngi encouragé bu baax waa F24 yëpp mm-hmm. di leen wax ni le Frantz Fanon waxoon ni chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir u la trahir combat bi dépassé na affaire Ousmane Sonko ak Pastef combat wu génération la pour république des ci réew mi Euh, démocratie des ci réew mi contre pouvoir des ci réew mi maa ngi kontaan nag di bu baax bi ma déggee ñi ñu ngi may liberté provisoire ñu mel ni ñoom sëñ Saliou Guèye nga xam ni Pape Ndiaye bu Walfadjri mhm. loolu nañ ko continuer mhm. président de la république réew day toll foo xam ne mhm. état moo apaisé. dëgg la dooley réew mi tey. Mhm. ab jàmmi réew mi kenn rek ko mën a indi. muy président muy Macky Sall du keneen. tey gisoon nañu ne aussi yaa ngi doon dox ay tànku jàmm. ànd ci ak ki nga xamante ne mooy Serigne Mbacké Ndiaye gisoon nañu ne ànd ngeen fi euh, euh, jàmmi réew mi euh, tey lan nga ñu mën a wax si àndandoo boobu nga xamante ne tey ku la xam-xam ni Pastef nga bokk. ñu gis la nga ànd ak koo xamante ne tey ci ci ci ci nguur gi la bokk ngeen ànd di dox ci li nga xamante ne jàmm réew mi la. waaw loolu loolu jaadu la mhm. xam nga man en dehors politique li may tuuti yëpp nag kilifa diine laa nekk ab imam ba pare nag nekk ab intellectuel mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. jàngi jotee ma demoon jàngi man boo xamee samay waajur xam fa ma jóge mm-hmm. ak xadara ba ma yaroo xeebu ma sama bopp ci Sénégal loolu dama ko yàgg di wax nit ñi xamuñu ko mais ñi ma xam xam nañ ni loolu mooy dëgg ci man man avant may nekk ay parti yooyu Sénégal moo ma tënk yaa ngi dégg baax na bu réew tollee fenn fi ay fausse information di jóg ki nga xam ne tey mag la ci réew mi di kilifa di kilifa ñëpp di sëñ Muntaxa ñu dem toog ak moom wax ko li xew loolu rek lañ def te loolu bañ koy def dañ cee jël suñuy responsabilité te bu ko laajaatoon ñu def ko parce que man ànduma kenn ci nga may conditionné boo gisee suñu ànd ak son ko neex daf ñu bàyyi ci sunu liberté yaa ngi dégg man du ma politicien man li ma dugal ci combat bi bi ma gisee injustice bu ñu teg Ousmane Sonko ma xam ne lii ay caaxaan la ak i tappale ci laa jóg taxaw ci wetam di ko jàppale waaye man li waroon a am bu amoon ci daara ji laay yam mhm. yaa ngi dégg mhm. kon il faut ñu xam kuy wax lan moo la boole ci coow li mhm. ñun ñu nii rek pour bëgg a falu man soxlawu ma poste man falu naa ba noppi man liggéey laa gëm ñàkk dundee yaa ngi dégg ah, waaw lii man politiciens yi calcul yi ñu nekk ma ci man Macky Sall moomu ma Sonko moomu bu ma ci jàkkaarloo dinaa la wax sama xalaat yaa ngi dégg mhm. kon loolu loolu lu naturel la mhm. jàmmi réew mi daal li ma ciy wax mhm. mag Sall moo ko moo ko mën a indi bu ko bëggee jàmm am troisième mandat boobu na ko teg ci suuf parce que moo waxoon du bokk ah, loolu na leer moo ko wax Sénégal yëpp ñaareel ba mooy détenu politique yi ne ci kaso yi nañ bàyyi ñëpp ñu mel ne ay Cheikh Bara Ndiaye mu ngi ci kaso bi kilifa diine la nekk bokk ci yoonu murit di fa kilifa dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram mhm. Cheikh Omar Diagne mu xaddamu Cheikhu Tidiane la di taalibe Cheikh Ibrahima Niass Abdou Karim Gueye mhm. nekk activiste bu ñëpp xam mhm. ñoom ñoom ñoom Diop Taïf ku mel ni Jomaay fay nekk ab inspecteur impôt et domaine Fadilou Kayta nañ bàyyi ñooñu ñu génn ñibbi ak ñi ne ci kaso yi yëpp ñu dalal réew mi ñu toog waxtaan waxtaan moom comme ci la ñuy mujj nañ ko njëkkee rek nañ ko njëkkee. ndax Macky Sall déglu ñi nga xam dañ ko naan écartel Sonko. wala fexeel ba Sonko du bokk ñooñu bu réew mi tàkkee dañuy daw. ñu ci bari bi réew mi tàkkee mbuur lañ demoon tëdd fa. ci ay hôtel. yaa ngi dégg. ba réew mi seddaat ñu ñëwaat bëgg a takk ay rajo. discours boobu du discours bu responsable. réew day toll foo xam nit ki responsable kuy wax nga jiital intérêt Sénégal. Sénégal buñ dof dofloo ba ñàkk république bii ñu am ni ba ba instabilité am ci réew mi mhm. ñun ñëpp ay perte. dëgg la sous région bii ñu wër tey. Mhm. fépp a ngi tàkk. wallaay te li ko taal yëpp mooy diw du bokk. Mhm. Côte d'Ivoire diw du bokk moo ko taal. wallaay diw du bokk. surtout ki nga wax ni du bokk moo yor majorité ci réew mi. kon bu ñu naxante nañ xoolante ci bët ñu waxante dëgg. fii ku fi dee ñu ber la. yaa ngi dégg. dëgg la man politiciens yi di nappaate man ken mënu maa napp parce que man kenn yoru sama dépense. nañ xoolante ji bët ñu waxante dëgg. dëgg la fii mënoo kenn mënu fee organiser élection yu Ousmane Sonko bokkul. te Karim Wade miñ ne dafa sàcc nga ni day bokk. a Sall nga ni sàcc la day bokk. Mhm. ñoom ñoo ko wax comme ñoom ñoo nangu Karim Wade Khalifa Sall bokk. Mhm. Ousmane Sonko dafa war a bokk. Mhm. te Macky Sall mu mënta bokk. constitution bi moo ko tere. ah moom démb démb euh, fee ca Paris euh, yëkkati na fa ay kàddu yoo xamante ne euh, mun nañu wax ni day niroog ni dafay dafa wax ni vraiment day bokk nañu mu jëm dëgmal li nga xamante ne mooy seen victoire en deux mille vingt quatre. non loolu ay genre sondage la rek yu muy mm. def ñun duñ daanu ci piège yooyu xam nga man li ma bëgg wax yëpp maa ngi koy wax. Mm-hmm. mu leer. Mm-hmm. léegi am réew buñ la ko dénkee. Mm-hmm. nga yor pouvoir yëpp te li nga bëgg a wax. ñime woo ko wax. dañuy bàyyi ba nga ñime ko wax. ba jaar ci digg waaw ñun loolu duñ ci tontu ay débat la yoo xam ne. c'est de fo débats. ñun daal li ñuy concentré wu mooy blocus bi ñu def kër Ousmane Sonko. jàpp nañ ni blocus bu illégal nañ ko dindi mhm. li ñu jàpp mooy Ousmane Sonko kenn mënu fee organiser élection yu mbokul mhm. ñaareel ba mooy Macky Sall kenn mënu fee organiser élection yu mbokkaat bokkaat mhm. yeneen ay détails la yoo xam ni ñun duñ ci dugg ñun dañuy concentré wu ci essentiel ci l'essentiel coowal CPI mi ngi mi ngi mi ngi wéy gis nañu Juan Branco tey def na benn euh, point de presse boo xam ne vraiment euh, commencé na di étaler preuve yi nga xamante ne mu ngi ko doon jox ndax dafa créé woon benn lien boo xam ne dafa waxoon na ko si nit ñi di yónnee preuve yi nga xamante ne moom la ñu am ci li nga xamante ne moo xew ci réew mi alors tey coowal CPI boobu ndax yaakaar nga ni Juan Branco ak ñi mu ci àndal dinañ ci dinañ ci dinañ ci am ndam pour yóbbu euh, président Macky Sall cour pénale internationale man de su ma la waxee dëgg rek mhm. en tant que sénégalais mhm. en tant que koo xam ne xam naa président de la République mhm. mu xam ma xam samay waajur mm-hmm. yéenewu ko muy dem CPI honnêtement mm. yéenewu ma ko ndax lan waaw mais parce que nag mm-hmm. yéenewu ma ko sama xol rek laay waxee ah mm-hmm. ak li na ci man waaw mais nag nit moom lay tax doo dem CPI yow yaa koy def parce que CPI mook tribunal bi rek ñoo ma ah. boo amee ay preuve da ngay ñëw indi ay preuve yu wane ni diw diw war naa dem CPI moom mi jàpp ni warut dem CPI mu génn ay ay preuve yu wane ne waru faa dem mhm. man nag yéene ko mhm. waaye nag nit ki daal mhm. jamono bi nga yor pouvoir da ngaa war a sóoraale ni pouvoir bi day jeex te da koy bàyyi te adduna bi moom léegi dafa xat fu waaye mën a nekk am na loo xam ne boo ko defee ci am réew force ñu atte la loolu réalité la adduna bi li anglais wax naan the word in your hand benn village planétaire la mhm. am na loom ku ko def ci àdduna bi ñu la man nag yéenewuma ko ko wax dëgg yàlla mhm. waaw comme yéenewuma ko nag su ma sañoon mu toog woote waxtaan parce que deret ji tuuru nag bari na ci Sénégal Sénégal deret ji bari na mhm. ñii dee ñëpp nag ay baadoola lañ doomu ministre deewagu ci doomu sëriñ deewagu ci kon jot na nag ñu toog waxtaan ñu arrêté deret jooju yaa ngi la loolu ki ci ëpp responsabilité bu ñu waxantee dëgg pour mu arrêté. kenn la mooy le président de la République. dëgg la tey bi déggee euh, ministre de la justice toog ci conférence de presse bi daal di wax ni euh, yenn si ay euh, vidéo du ministre de la justice sax autant pour moi ministre ministre de l' intérieur Antoine wax ni yenn yenn si ay vidéo yi nga xamante ne waa France 24 jël nañ ko diffuser ko hmm. ay vidéo la yoo xam ne dañ koo monté yoo xam ne dañ koo manipuler waaw hmm. soxna Rama man sama interlocuteur du Antoine je le respecte beaucoup mais du ma ci wax man réew mi bu dee am na kenn ku may waxal. Mhm. président de la république. moom ngay ci moom ngay moom ngay waxal directement moom laay waxal directement. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. bu dee am na keneen ku may waxal ci réew mi Ousmane Sonko la. lay doon ñaar ñii ñoo yor problème <laughs> mais vraiment du ay Antoine quoi. kooku respecté laa nag. maa ngi koy nuyu au passage. mais nag man du ma wax ak moom. parce que man am na ñoo xam ni. amatuma temps wu di leen déglu quoi du moom kese classe politique bi ba ñu ci bëree bëri. man su ma amee lu may wax am na accès ci Macky Sall mi yilif réew mi. moom laay waxal direct moom directement moom laa xamanteeloon. Mhm. moom laa seqaloon ay teraanga mu koy seq ak sama waajur dëgg la ñu dem nag ba jamono ñëw bokkatuñu position ma assumé ko mhm. wane ni bokkatuma ak moom position mhm. parce que fi mu jëmee réew mi d' accord ma sama ADN nangu. dëgg la ma am courage wan ko d' accord mhm. waaye du sama ennemi nag. Mhm. Mhm. loolu important sénégalais yi xam ah. <laughs> mooy damay ñëw ci li nga wax ni biir Pastef dafa am ñoo xamante euh, état bi daf leen a def ci poche di leen manipuler di leen jox xaalis di leen gerek yu ni mel te yow mi nga xamante ci biir lan ngay lan ngay tontu ci loolu. ah yow Pastef loolu mënu faa am. lu tax non dama lay wax rek. Hmm. Pastef parti la boo xam ne mm-hmm. parti boroom xam-xam la ñun biñ ñëwee dañoo jaay benn idéologie mm-hmm. idéologie boo xam ne yàgg na fi da doon nelaw ci xolu sénégalais yi suñu leader mm. beesalaat ko xam nga Cheikh Ahmadou Bamba mm. xaadimu rasul bi mu ñëwee mm-hmm. fi la fekk diine dëgg la daf ko beesalaat dani lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu daf ko beesalaat Ousmane Sonko fi la fekk politique mais dafa ñëw beesalaat politique ba jeunesse bi yëpp daw intéressé wu ci li muy wax mhm. Pastef mënul am part mënul nekk parti téeb tóob mhm, mhm, foofu tóob amu fa place nguur gi nag ñoo nekk ci seen i manipuler rek foofu benn kilifa moo fa am moom la ñuy déglu muy Ousmane Sonko mu ànd ak ay nawleem nag jox leen cër respecté leen ñun ñi daf ñoo jox cër respecte ñu yow man boo manee nee jàq xam ne man ku ma respecté wul du ma ànd ak yow loolu am na ngi dégg boo xamee ku mel ne Jomaay Fay xam ni kooku noble la doomu séeréer la ku ko respecté wul du ànd ak moom mën naa cee lim ñu bari sëñ Cheikh Coro Mbàkke mm-hmm. kon Pastef parti la boo xam ne ay naw la ñoo fa daje mm-hmm. pour génne réew mi ci guute gi mu nekk mm-hmm. yaa ngi dégg yooyu ñu koy wax dañuy wax rek foofu toob amu fa tóob mënu faa am parce que combat wu Pastef dafa metti yaa ngi ñu ngi lay tëj kaso ñu ngi lay menacé sa njaboot nekk ñu en sécurité kooku boo nekkee tóob da daw foofu ragal amu fa tóob amu fa ay sénégalais yoo xam ne réew mi mooy daw ci seen deret ñoo fa nekk yooyu moom c'est des faux yoo xam ne xëy na biir biir f nag mën naa am topp moom. biir f waaw. Hmm. Ah lu tax nga lu tax ne biir F24. mën ah naa am topp parce que parce que hmm. état fépp fu mbooloo daje dina fa am topp. mais pourquoi biir F24 et pas biir Pastef. mais Pastef nekk xam nga lu tax. Hmm. parce que Pastef ni parti bi bindoola la boo naree nekk topp. doo ko fa xaar xam nga ñaata doomu ñaata ñaata coordinateur u Pastef tey ñoo nekk ci kaso bi. mënoo nekk tëb ba pare ñu lay jàpp. kon xel nanguwul loolu. Mhm. léegi nag état moom rôle lay def quoi. ci biir F24 mën naa fexe ba am fa ay top ñu koy informer. Mhm. waaye tëb moom mooy ki nga koy def mooy ki làqatu wala ki nëbbatu. Mhm. xam man maa ngi nii toog nii ci mbedd mi di wax sama xalaat. di wax dëgg la. aw ma garde corps aw ma dara. parce que damaa jub moo tax lekkuma avance kenn. su ma lekkoon avance kenn du ma waxee nii may waxee. daa yooyu ay débat la yoo xam ñun duñ ci dugg daal kon mën nañu kon mën nañu dégg ci wax ji ne waa waa waa Pastef hmm. euh, instant bi dañuy moytu waa F24 déedéet ñun tóob ragaluñu tóob ok ñun dañuy jëflanteeg nit ñu xam ne toog nga mhm. ñu lay gérer mentalement yaa ngi dégg parce que mhm. ñun li ñuy def ñu ko état mhm. koo xam ne am parti politique nga yor am ay këyit état jox la ko looy nëbbu amul man sama téléphone du ma waxee WhatsApp Mhm. parce que man lépp luy illégal du ma ci dox. Mhm. lu légal ci laay dox. Mhm. kon ke jaru may làqatu. Ousmane Sonko tamit ci lo lo niveau boobu la nekk. ci la nekk. kon yooyu ñuy wax noonu dañ koy wax ñi jàngul woon wala ñi nga xam xamuñu réew mi. ñun fii ragal amu fi. ku ñuy xoqatal amu fi. yaa ngi dégg. fii dëkk ci réew mi ñoo xam seen maam yi ñoo tawax réew mi. ñoo fi nekk. yaa ngi nekk di làqatu wala yu mel noonu. ci république lañ nekk. république boo ko xamee. xam ni lépp looy def dafa war a leer. Mhm. parce que boo defee lu leerul sa kaw lay. sa kaw lay dal mhm. waaw. Mhm. alors taux bi bu leen neexee ñu ñëw ah. ñu ñëw ragaluñu ko ragalu leen ko. waaw <laughs> ragalu li ñu naan ragaluñu booy wax ragaluñu loolu <laughs> waaw. nii noonu kon léegi ñu tëjee fa muy lan mooy seen plan B tey est-ce que euh, jotul euh, waa Pastef ñu jéem a ut euh, li nga xamante ne mooy plan B. aussi ndax tey leader yi nga xamante ne ñoo nekk euh, biir yeewi askan wi est ce que tey bu ñu jógoon ñoo ñëpp taxaw jàppale ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ngir moom mu nekk candidat euh, moom kese ñoom ñëpp ñu bàyyi seen ay candidature est ce que loolu du gën a du du yombal xeex bi oh hmm. avec modestie ma wax la li ma gëm man hmm. man bu Ousmane Sonko bàyyi woon politique hmm. man ma bàyyi bu bàyyee nga bàyyi dañuy wax rek dañuy waxtaan gëmoo yeneen leader yi nekk biir yeewu askan bi Ousmane Sonko rek nga su ma leen gëmoon kay dem jàppale leen su ma leen gëmoon dem jàppale leen mm-hmm. parce que ñoom ñëpp xam naa leen avant may xam Sonko mm-hmm. kon ñun amuñu plan A amuñu plan B amuñu Z benn plan lañ am muy A amuñu B C D am yooyu amuñu benn lañ am muy Ousmane Sonko mm-hmm. te gëm nañ ko dugal ci palais bi yooyu ñu koy wax nañ dem nelawi dégg nga wax naa la ne la kenn mënu fi organiser élection yi Ousmane Sonko bokk yaa ngi mm. benn plan lañ am muy Ousmane Sonko mm. te li ci kanam raw li bët di nga ni wax Imam Dramé waxoon na ma mm-hmm. réew mi am réew di nga dem ba ma réew mi bëgg réew mi yëpp nga téye ko mm-hmm. kilifa diine yi ànd ak yow li ëpp ci kilifa diine Ousmane Sonko lañ àndal mm-hmm. ci église bi ak ci diine l'islam man mi di wax xam naa ko parce que këru diina ba mu dem li ci ëpp ñooy ànd jeunesse bi ànd ak yow intellectuel yi ànd ak yow réew moom nga koy bàyyee kenn kon yooyu nañ bàyyi caaxaan hmm. jigéen ñi ànd ak ñun ah ñun réew mi dañoo gëm ni suñ loxo lañ ko téye nii kenn mënu fee décider dara doo wax ak Ousmane Sonko ak Pastef loolu réalité la bu am hmm. te loolu nguur gi xam nañ ko consulat yi nekk fii xam nañ ko hmm, diplomate yëpp xam nañ ko au niveau national et international xam nañ ko Nations Unies xam na ko France xam na ko kon yii ñuy wax ne yëpp waxi caaxaan la Sénégal mu ngi ci loxoy Ousmane Sonko mu té loolu la yàlla dogal waaw alors tekk tekki tekk tekki tekki tekkaaralu Ousmane Sonko bi tekki gi depuis bi ñu ko jëlee euh, fële euh, indi ko fi nga xamante ne mooy biir këram bi ñu ko jëlee Koungheul indi ko këram ba léegi euh, Ousmane Sonko mën nañu wax ne àdduwul waxul ak ay ay ay ñi nga xamante ne ñoo ko ñoo ko bëgg vraiment bëggoon a dégg ay kàddoom depuis bu jógee foofu ba léegi tey lan lan lan lan lan nga yaakaar ne moo waral tekki gi ndax génnoon na benn yoon expliqué téléphone am yi ni mu demee ak ni ñu jëlee ay matériel am mais depuis lors déggaatuñu mu àddu waaw xam nga comme ni nga ko génnoon na benn yoon. wax mhm. situation bi ni mhm. mais wax moom da ngay ba wax jot rek nga wax. Ousmane il est politique. parce que boo gisee mu naqaree xeexal mooy du ngaaka. Mhm. te du ragal. mooy xeex dangay nekk doo nekk ngaaka parce que boo nekkee ngaaka ñu sànq la. a pare doo ragal. te xam nga am nga information Ousmane Sonko kenn ëpp ko information ci Sénégal. il est informé waaw il est ko am nañ information. kon day bàyyi ba wax jot rek mu wax. buñ ko yàkkamti. d'accord wax jotee. dina wax. dina wax te bu waxee ñu xam ne gaynde gi wax na. dëgg la ah man dafa may woo naan ma waaye ana pro pro fu mu nekk ci lu mu nekk. xam pro moom. Uh-huh. pro moom. Hmm. loo mën di dégg. Mm-hmm. li ñu naqari rek mooy tëj gi ko tëj këram. ndeysaan dëgg mais Ousmane Sonko ko xam-xam ne mental bu fort la mm-hmm. même bu nekkee ci jafe-jafe sax du ko du ko wane. waaye nag mu ngi ci jafe-jafe parce que mm-hmm. jafe-jafe weesuwul. ñu tëj la encastré sa kër. mënoo gis say avocat kenn mënu ñu gis laa mm-hmm. gis loolu jafe-jafe la. Mm-hmm. waaye Ousmane dafa am mantal bu foor loolu moom ñun ñu ko jege xam nañ ko. Mm-hmm. dara mënu ko déstabiliser. ah ku ku nekk président sax il faut man mii sax li may dëgër dëgër <laughs> léeg-léeg affaire bi. ndeysaan dépassé ma xaw a kii mais boo ñëwee mu delloo si waat. ndeysaan. Ousmane leader la kilifa la. dafa am tawxiid gëm yàlla. du franc-maçon loolu dafa jar a leeral. gëmul franc-maçonnerie. jullit la jullit. ah fan. ngi dégg moo tax bi juge bi àttee ni Ousmane Sonko du violeur ma ne ko alhamdulilah yéen ko wax de mhm. ñu ne du deful menace de mort ma ne alhamdulilah yéen ko wax mhm. yaa ngi dégg mhm. ñu teg ci benn lan benn mbir mooy corruption de la jeunesse loolu kenn mosu koo dégg ci Sénégal man ba ma juddoo ba tey mosuma ko dégg man kay corruption mineure lañ koy def kon yàlla mooy àtte yàlla yàlla buy buy buy buy yàq day mel ni kuy defar wala buy defar day mel ni kuy yàq buy defar day mel ni kuy yàq Sonko moo gën a set ci réew mi yaa ngi dégg ñoom ñoo ko takkaloon ñoo ko setal mm-hmm. te tuuma alalu gor la tuuma alalu la mm-hmm, mm-hmm. nattu alalu julit la loolu la sëñ Moussa Ka wax nattu mooy kerkeraanu awliyaaw ku weddi laajal xayrul ambiyaaw noonu yaako ko génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj ta naan day njabaraan en réalité nit nattu bi bu daluloon usman Sonko da ngay gis ni li muy woote day des parce que nit yàlla yi nga fi dégg yëpp natt ñu ci bari yàlla nattu na leen ci jigéen surtout si jigéen mhm. yonent yàlla yuusufa nattu nañ ko ci jigéen mhm. alxuraan seetal ko mhm. soxna si yonent bi salaay salaam jigéen tuumaal na ko góor tuumaal na ko alxuraan seetal ko kon kay buñ ko tegalee Ousmane Sonko la xarwa lu yanu maanaa la tey nag justice seetal na ko nañ am courage nag nangu ko nangu rek bàyyi ko gëm ni nag lii yàlla moo ko bëggee nii kenn géej guy daw il faut pas arrêter la mer avec ses bras te Ousmane Sonko géej guy daw la kenn mënatu ko arrêter macha allah amoon nañu vraiment mbégte ak euh, kontante euh, jàkkaarloo ki nga xamante euh, ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñuy rafetlu vraiment teewaayam jàkkaarloo woon ak moom waxtaan bu am solo bi nga xam ne nag yàggoon naa ko sàkku moom tey la ko yàlla mi ngi noonu alors ñu fekk ko daral gi gis ngeen xar yi xam ne moo fi ngi nii am na solo mi ngi fii Wakaam. ci côté. le régal voilà boo ñëwee ba côté le régal boo laajtee ana fan la place u imam Dramé nekk daral bi ñu ba foofu boo ñëwee nga daal di xar bi nga bëgg ay xar yu baax ñoo fi nekk ah ku si nekk rek ak poche fu mu toll boo ñëwee rek mu defal la xéewal daal di lay jaay xar yu baax nga daal di tabaski ndax ji moom nee naa ko xaray actualité ñëpp moom la ñuy waxtaane ñëpp moom la bëgg kon ku seet imam Dramé rek nga am xar bu mucc ayib allah hmm. ko